gars yi match ci biir match yi dana am solo tey jii ngeen bàyyi ko xel ñu bëgg leen a andi njàngan mi ak clé de match yi nga xam ne jàpp na ne foofee ah, fële mbir mi war a jaaree gannaaw ah, buñ leen nuyoo ba pare ngeen def seen i abonnement yow mi ne ci YouTube bi wala TikTok bi bu la neexee man nga dabbar ñi sab abonnement bu ko defee lépp lu ñu dugal rek nga man cee jot ah, mu am solo bu baax a baax. boobu mi lañ koy doore maanaam li nga xam ne moo njëkk ci xibaar yi di match bi nga xam ne tey jii dina am. Euh, ci diggante Inter de Milan ak équipe bi la di Manchester euh, City ñu bari nag jàpp ni Manchester City moo ko ëpp doole waaye lu ci bari ci gone yi ci commentaire yi euh, buñ koy gis bu baax a baax la ngeen di jàpp mooy maanaam City mën naa dóor équipe bii di Inter de Milan waaye nag Inter de Milan neexut a dugal tey yàq match bi la ñu gën a man kon am ngeen confiance ci City waaye jàpp naa ne tamit euh, mën naa am ay changement yu ngeen xalaat ni mën na cee am looloo tamit ci commentaire yi mën ngeen caa continuer wéy di def li nga xam ni mooy seenub sa mbaxloo fële ca commentaire ya ko defee joxe seen xalaat ci match bi pronostic ku ngeen jàpp ni mooy gagné ci match boobee ci diggante City ak équipe bi la nga xam ni moo nekk euh, Inter de Milan ngeen wax tamit lu waral ngeen jàpp ni équipe bi ngeen tànn mooy gagné loolee dana am solo bu baax a baax match ci biir match yi nag Haaland danañ ko ca xaar bu baax a baax ak Pep a mi nga xam ne coach gagnant mën na ko bu baax a baax kon match boobee ngeen kii séntu mu def ci ay surprise yoo xam ni dana andi final bi ndax moom moomee yéemeem du woon jël championnat Angleterre waaye yéemeem mooy triplé triplé nag triplé nag ah, ci la Ligue des champions bii nga xam ni moom la ñu yebbi ah, bokk kon tey ji match boobee Pep Guardiola ah, daanaka ñu bari wala boo caméra yu bari danañu ko baraake ci gëtam yooyee nga xam ni ci lay lijjantee match boobee nga xam ni dina am solo bu baax a baax waaye ka keneen koo xam ni moo war a yor Inter de Milan waaye nag yaa fuus daanaka ci yenn saa yi buy football daf koy xaw a jàpp mu nekk kii di euh, Lukaku du doomu Belgique d'origine congolais moom moomee nga xam ne daanaka dana football ca point attaque ba am man naa am mu bokk ci ñi nga xam ne ñooy départ waaye nag loolu moo njëkk doon problème jàkkaarloog ay camp di nelaw loolee dañ ko fi tere tayit loolee euh, day nekk loo xam ne lu muy faral di def la euh, gars yi match ba dinañ leen ko bàyyiloo xel tamit bu 18h jotee ci Aladji Malick TV danañ ci indi ay jàngat yoo xam ne yu am solo la kele di match yi am ñun ci waxtaanal jërë ngeen ci kanam tuuti yeneen information